salaamaaleykum euh, yow Moussa Diop mu nekk DG Dakar Dem Dikk man naruma la woon a tontu sax bi ma jëkkee dégg sa premier vidéo waaye bi nga dëggalaatee nag li nga nekk li nga wax yaa ko wax moo tax ma lay tontu vidéo bi dama bëgg ngeen arrêté seen réewande gii ngeen di jël di ko jëmee Touba. Touba la fa nekk amut feneen boroom dëkk baa ñaan sunu borom ba mu dimbali ko defal ko loo xamante ni kenn du ko am. seen nguur gii ngeen nekk sax sëñ Bamba tax bu dul woon ak Serigne Touba nit ku ñëw du fi yor nguur tubaab bi fii la dugg fuuta googu ngay wax ak feneen fu mu doon fu ci ne tubaab bi daaneel na fa góor ñu dem ba réew mi lew nekk ci loxol sëriñ Touba. maslaa tax kenn ku ci nekk la ci sa cër ñu jox la ko ngeen bëgg a fontoo waa Touba loolu duñ ko nangu naa ngi naan autoroute Ila Touba dafa war a am fuuta nit ñi jëmuñu fuuta Touba leen jëm. économiquement li Touba di recensé fan fan lan moo ko recensé fii ci Sénégal màggalu Touba fu mu am boo defee autour ila Touba defal màggalu Fuuta ba xam nit ñi dinañ fa ñëw bàyyi leen seen affaire réewande yi ngeen di def bi sëñ Mourou Moustapha di taxawal vingt 1929 raay booba yéen ileer sax da ngeen koo mën a jënd weñ gi jëm ci ileer ileer mooy loolu ñuy bayee mënu leen koo jënd yoonu murit amuñu problème mu tali te fii tali toll ñu am ñu soxla Ila Touba ci la ko sëñ Touba inde par force ngeen ko indi sëriñ Bamba ko soxla baarakali fi xarakaati wa sukkoot rabbi lazi xat xaadali kun fayakun la wax lu xewati dana ñëw waj al bihi daariye kal madina barakatan wa kaabatan masxuna lu amoon màkk dana ñëw Touba seen dëkk yi nag nii mu mel seen coxor gay tax dara du fa avancé et puis ngeen arrêté seen affaire yi ngeen di def yoonu murit du seen morom bu ngeen di foyee murit yee yor seen carte ku leen neex koy jox te na ngeen arrêté ah gore nag bu yow nit bu yaruwul lu am laa di waxoon rek dana dégg lu mu war a dégg bu leen fontoo laa wax Touba na ngeen arrêté seen làmme ñi ngeen jël jëme ko ci Touba wala ñun murit yi ñoo koy faj lopp nag tuuru lopp tuuru lopp tuuru dootuñu ci waxaat nag Touba